ëpp si euh, at mi ñu ko doon daal di waxtaanee mu jëm nag si nga xamante ni moom mooy Mamour Diallo mu mel ne rek euh, lu ni mel sax euh, ki nga xamante ni moom mooy suñu premier ministre actuel di Ousmane Sonko moom moo ko daal di yëkkati woon ba tax na sax pôle judiciaire financier bi nga xamante ni daal nañ koy taxawal lu yàggul dara magistrat ya nag jël nañu dossier boobu en main ñu si nag di ne rek ki nga xamante ni moom mooy ginnaaw Mamour Diallo bu demee wuy ji ba ñu laaj ko si ay question waaye it mun nañoo xaarandi ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko ñu woo ko donte sax dina am yeneen i mbir yi nga xam ne dañ koy teg ngir daal di koy woo ndax euh, ab ministre rawatina premier ministre kenn du tëb tëb rek woo ko mais nag dossier bi il faudra que mu dem daal di euh, joxe ay xalaatam ak li nga xamante ne moom mooy ay leeral si 94 milliards yooyee. waaw xam nga 94 milliards. Mm-hmm. yu Mamour Diallo. Mm-hmm. Euh, booy fàttali dafa indi woon coow. Mm-hmm. li leen boole woon nag mooy ab kër. xaw ma teef xaw ma san nangam la woon. boo xam ne kii di Ousmane Sonko dafa tuumaloo ne eh, kii di Mamour Diallo daal eh, daf ci am intérêt bu rëy. Mm-hmm. ci loolee nag au retour Mamour Diallo waxoon na ne Ousmane Sonko daf ci amoon ab commission. Mm-hmm. mais loolu sax xawoon na indi caw ay merkel et cetera mm-hmm. euh, je pense que à l' bi mu amee moom Ousmane Sonko mi taxawal nañu ab commission euh, d' enquête parlementaire. au niveau de l' assemblée nationale convoqué ko foon mais Ousmane Sonko dafa waxoon ne lu dem wuy ji boobule par la suite euh, enquête parlementaire boobu ñoom ñoo toog. ne ginnaaw Ousmane ko kat demul wuyu ji. Mm. à travers information yi nga xam ne aussi am nañ ko. ñoom dañuy classé li nga xam ne rek moo di clos wala sans li nga xam ne dañ koy classé mu doon sans suite justement. Mm-hmm. Euh, ci par rapport ak boobu le mbir et loolu si jàpp nañu sax ñu bëri. moo xawoon a metti Mamour Diallo ba tey ñu jàpp ne bokk na ci ñi dal di taxawaloon mbirum ki nga xam ne moo di aju Sarr parce que mhm. mbirum Adji Sarr Mamour Diallo cité nañ ko ci lu bëri wax na ne éventuellement que moo teg coup bi parce que l'affaire serait par rapport ak dénonciation boobu nga xam ne eh, kii di Ousmane Sonko eh, def na ko à l'époque ci wàllum eh, terrain boo xam ne nañ Mamour Diallo mhm. daf ko dal di jëfandikoon mais mhm. par la suite dafa am lu ci bees parce que la Cour des comptes éventuellement bi loolu amee moom ci dernier rapport génne woot na daal li nga xam ne rek moo di jox jox dëgg Ousmane Sonko par rapport ak accusation wala à travers tuuma yi nga xam ne tegoon na ko ci ndodd Mamour Diallo mm-hmm. maintenant je pense bu ñu demee ba Cour des comptes également wax ne kat Ousmane Sonko li wax éventuellement dëgg la donc loolu aussi day wane ko tout simplement mbir la bu ñu mais à l'époque je pense que dossier la boo xam ne liñ ci waroon def defuñu ko ko ñëw ci nguur goo xam ne kat lépp luy rapport nga xam ne moom président Macky Sall moo noon kat daf ci teg ab concum mhm. ñii bu ñu ñëwee dañu ko daal di déconcee indiwaat ko tegaal ko li nga xam ne rek moo di sur la table boo ko defee aussi ñu mën ko leen maintenant nag jàpp naa ne euh, tey lii c'est opportunité certes les gens diront que Ousmane Sonko dafa nekk di jéem a offensé wu wala dafa nekk également di jéem a euh, fayu à travers peut li nga xam ne Mamour Diallo na ko et cetera et tout peut-être ba tax muy yëkkatiwaat bi le dossier mais ne kat am na liberté d'expression ci réew moo xam ne am na indépendance donc yii bu ñu ko fa yëkkati yoon la aussi fi mu xam ne doone benn mën a gëstu mën a xam lan moo ci dëgg ak lu amul dëgg mhm. je pense que lu yàggul dara sax famille yi nga xam ne ñoom moom boobu la suuf ñoom aussi génnoo euh, génnoo nañ fan yi ñu ñu weesu doon wax que ne ba léegi mbir mi amuñ ci lu leen neex ndaxte ba léegi éventuellement que ne kat mbir mi leerul mhm. maintenant nag c'est une opportunité a un pôle financier ne euh, du ñi ñoo ko installé mais nguur gu fi nekkoon ñoo gisoon ne kat lu mel ni CREI mu di cour jàpp ne kat benn euh, li nga xam ne rek moo di juridiction exceptionnelle la parce que juridiction la boo xam ne saa bu la toppee du moom mooy uti preuve mais yow mi ñu topp aussi yaay dem di uti preuve mhm. par la suite ñu jàpp ne kat loolu lu ñu war a réformer la lu ñu war a changer la lu ñu war a indiwaat d'autres mécanismes la ils fait je pense que tey c'est opportunité justement ci li doon Ousmane Sonko di wax ñu ñu ñu di koleeral est-ce que Mamour Diallo aussi mhm. ne question la boo xam ne Sénégal yu bëri ñu ngi doon ko xaar comme étant aussi l' affaire des vingt neuf milliards de Prodac je pense que mooy dossier yi nga xam ne éventuellement askanu Sénégal ñu ngi doon ko xaar pour que it nguur gi mën ci indi li nga xam ne moo leeral certes nag du ñàkk dina am ñu taxaw ne kat mbir mi ab fayantoo la également dañu nekk di venger wu par rapport ak ñooñu nga xam ne ñoo leen tegoon ay jafe-jafe parce que dossier yooyu benn ne dafa créer beaucoup de li nga xam ne moo débat la pour que tey ñu mën ko leeral maintenant ku mel ni euh, ki nga moo di maître Khoureychi moom ce mm-hmm. matin je pense que euh, jot na évoqué en disant que mbir mi ñu ko yóbbee ci pôle financier loolu Ousmane Sonko wala képp koo xam ne laale nga ci wala éventuellement taxe nga ci. Mhm. dañ la mën a déglu bu fekkee ne ki nga xam ne moo di premier ministre jox na ko li nga xam ne rek moo di dogal et jàpp naa ne mbir boobu aussi le premier ministre peut-être du opposé wu bañ a jox Ousmane Sonko à ce que mu dem wuyu ñi nga xam ne ñoo di le pôle financier. Mhm. bu ko defee aussi à ce que tey ñu enquêté mais question foncière aussi dafa doon ne éventuellement euh, li fi yàq wala li fi indi si jafe dafa mhm. bëri trop trop trop trop ba tax na question la boo xam ne aussi dafa war leer. occasion la pour Ousmane Sonko euh, teg ay preuves mais occasion la aussi pour Mamour Diallo mën a setal boppam. Mm. parce que lii bu leerul fii ba aja jag jàppal ne Mamour Diallo saa bay waxee 94 milliards suñu xel aussi dafay dem. Mm-hmm. Euh, ne rek moo de 94 milliards de francs CFA. maintenant nag cette affaire aussi amoon na prolongation loolu moo tax Mamour Diallo dafa mere Ousmane Sonko ba tax peut-être mu bokkoon si ce complot. Mm-hmm. parce que on a écouté ce fameux audio là entre moom ak nga xam ne moo di soxna si di soxna Adji Sarr mais jàpp naa tey opportunité la wala également. Euh, mbir la boo xam ne serait intéressant pour que les sénégalais sachent concrètement ce qui s'en passe ci par mm-hmm. rapport ak boobu le dossier bu fekkee Ousmane Sonko da ci am commission wala da ci laale su boobaa ñu xam bu fekkee Mamour Diallo mi ñu ci tudd laale wala taxewul éventuellement ñu xam ñi moom suuf si aussi xam quest qui s'est passé concrètement en ce moment peut-être sénégalais dinañ xam euh, lan moo nekkoon ci boobu le dossier mm-hmm. mu mel euh, ni nga ko yóbbal euh, jëmale ko si li nga xamante ne moom mooy ay jumtuwaay euh, si euh, mbirum gendarmerie ñu jàpp ne rek loolee dafa daal di amul benn traçabilité ndax leerul ndax bu ñu demee ba naan milliards si wàllum armement dafa rek xaw a jaxase li nga xamante ne moom mooy xelu ña fa nekk sa bopp ba jamono ji yaakaar naa ne réew mi war nañoo càmbaraat bu baax a baax pôle judiciaire ba amaan na beneen liggéey. waaw xam nga euh, la affaire également des euh, des li nga xam ne moo di 74 milliards de francs fa mm-hmm. euh, cette affaire serait liée par rapport ak ay euh, mbirum li nga xam ne moo di sécurité. parce que dañuy waxoon la gendarmerie. Mhm. moo ci àndoon ak le ministère de l' environnement. Mhm. ñu dem jënd ay armement euh, pour justement aar li nga xam ne peut-être moo di seen ay kaaraange. Mhm. maintenant li xawoon jaaxal nit ñi nag mooy euh, ñu ko jëndee ba pare ñi ci tudd moo xawoon indi jafe parce que même boo demee au niveau de l' assemblée nationale. lu jëm ci wàllum question défense lu jëm ci question sécurité aussi bu ñu koy waxtaanee au niveau de l' assemblée nationale loolu du am débat. député yi ñëw rek dal di ko voté mais bi bii nii li xaw a jaaxal ñi d' mooy le ministère de l' ban euh, li nga xam ne moo di euh, ban soxla la war a mun a am ba jël koppar gi ni mel. ne bu ko mm-hmm. jëndee li nga xam ne moo jëm ci wàllum armement te armement yooyu est que ñoom it war nañu ko mën a yor à l'époque bi mu amee pap Pape Alé Niang yoree euh, jotee ci li nga xam ne moo di dossier bi am ay mbir yoo xam ne kat exploité na ko à l'époque dañ ko jël si ne ko kat mbir mi dañ ko classifié li nga xam ne moo di secret défense. Mm-hmm. donc kenn amul droit éventuellement di ci wax au moment où ñu gis ay manifestations am fii ñu gis ay nit yoo xam ne dañ leen tiré. ñu daal di ñàkk seen bakkan ñu gis ay nit yoo xam ne nañ nekk ay takk der yor mm. ay armement loolu nag bu fekkee am na ci ab réew ñu wax ne kat jënd nañu armement mm-hmm. donc yoon la aussi à ñu lëjbët ñu enquêter pour xam arme yooyee ci lan la ko defee ak lan moo tax éventuellement ñu jënd ko mm-hmm. maintenant dañ ci tudd koo xam ne il s'appelle le petit Boubé mm-hmm. moom c'est quelqu'un boo xam ne dañu ko lancé mandat d'arrêt international c'est un Nigérien état bu a dem di boo ko méngalee mu toll ci li nga xam ne mooy 74 milliards de francs CFA donc ceci quand même mériterait à ce tey ñu ubbi ci li nga xam ne moo di enquête mhm. te boo liiree éventuellement li ñuy wax mooy mbir mi dañ ci enquêté ku mel ni général Moussa Fall parce que à l'époque moom moo yoroon la gendarmerie moo jiite éventuellement ki nga xam ne moo di la gendarmerie keneen ki mooy le président Macky Sall bi nga xam ne moo fi mhm. nekkoon parce que bu ñu demee bay jënd armement ñu ne kat loolu palais présidentiel la ko yóbboon mhm. donc la responsabilité ne kat moo di président loolu mën nañ ko ne éventuellement am nañ maintenant en temps de causal je pense que les quand yàkkamti nañu. Mhm. mais les Sénégalais aussi bëgg nañu xam concretement ci loolu ci yan anam moo taxawoon ak lan moo fi xewoon ba ñu war a mën a jënd ay armement ci mhm. loolu Al dafa def benn reportage ci par rapport ak les euh, li nga xam ne rek moo di les armes de répression yi nga xam ne yoroon nañ ko ci événement mars 2021 ba février 2024 Al Jazeera daf ne yooyu la matériel nga xam ne ay takk der yoroon nañu ko mhm. matériel yooyu nekkul pour daal di euh, not sa askan wala aussi war ñu ko utiliser par rapport à des manifestations ay armes yoo xam ne li ko tax a jóg mooy xeex lu jëm ci wàllum terrorisme. Mhm. xeex également ci yenn ci ay phénomènes yoo xam ne am na ci àdduna bi. Mhm. maintenant je pense que question boobu aussi dafay ñëwaat mais bu fekkee yaa ngi fàttaliku bi premier événement Ousmane Sonko yi amee. mais gisoon nga li xew ci li nga xam ne moo di Sénégal dañu mhm. demoon ba peut-être ñu bëri ne takk na di réagir yi et tout ci noonu le président ñëwaatoon ne fi ñu toll nii pare naa kenn doonu bett mais loolu fekk na mu dem outil des ar des armements gisoon nañ sax ci benn 4 avril ñuy génnee ay drones yoo xam ne ñu lancé ay grenades mm-hmm. lacrymogènes gis également yenn xeetu oto yoo xam ne ay oto yu bees la éventuellement yoo xam ne génne nañ ko fi mm-hmm. maintenant nag man dama jàpp ne après ñu gis ay nit yoo xam ne nañ kat ñoom bokkuñu si ñoom te loolu du samay kàddu mm-hmm. mais à l'époque Ibrahima Diop mu yoroon wàllum jokkaloo ci police moom moo def point de presse génnee un numéro fallu que France il a fallu yenn chaînes yu nekk au de l'étranger ñoom ñoo génn démentir les propos de ki nga xam ne moo di commissaire Ibrahima. donc mm. du coup nag pour loolu fekkee am na ci réew. au moment où on parle que y a 86 personnes yoo xam ne ñàkk ni moo di ci mm. ne di ci dugal koo xam ne aussi ëllëgam wala li nga xam ne lépp lu dugg leerul mu di le petit boubé mais loolu dama jàpp jàpp ne ça demanderait wala sa mériterait à ce tey ñu ubbi benn enquête diligente ko